nii moom la fekk tey géejawaay ñu war a bëre combat bu rëy dox ci diggante ma général Malika <laughs> xale ba def na koppati def kol bu weex simi kol bi ak koppati bi ma ngay dugg ndaysaan ma ngay dugg am na lu ñuy sotti ci suuf ñu ngi koy wisal <laughs> ndaysaan lamb la am na lu ñuy sotti ci loxo bi sotti nañ ko ma ngay sëlmu masaana ci bopp bi laal na ci loxo yi laalaat na ci loxo yi ma ngay dugg ma ngay dongali ñu ngi koy wisal waaw waaw thank you

Moussa sëñ Aliou suñu xaar suñu sori ñu doon suñu papa bu baax a baax sama yaay sama mayu ku suñu ñu naan papa sama yaay lépp sama mayu jigéen ñi mbay di bëgg sama gars yi ma àndal nga xam ne souvent ma ñëwee ñu ko xam ne dafay bëgg ñëw sama maam amuñu benn yoon xaar ma yàlla maa leen di sant bu baax a baax a baax di bëgg waa am na quatre cent cinquante six yëpp ma yeewoo waaw di bëgg ñëpp di jëlal ko sama dëkkandoo yi bu baax a baax waaw tey gis nañu combat bi xaw na yàqu ñoom it nga blessé bii macha allah yaa ngi sant yàlla bu baax ñoom adversaire bi nga xamante ne adversaire de taille muy ki nga xam mooy général Malick lan nga koy yóbbu ak loo koy wax suñu combat. waaw général amul lépp lu ko yóbbu dafa ko ñaanal tànn ak ba suuf moo yóbbu lañ jàpp combat bi maam blessure mu nekk di wax parce que jàppal nañ ko dañ ñaan yàlla mooy fekkee rek ak tal ba suuf rek moo def li moom la def. waaw gis nañu ñu bëri nañ di général mooy favori est ce que man nga loolu. loolu gisuma sax waaw loolu su ma su ma su ma jigéen la damay damay jéem loolu gisuma jéem waaw. waaw Cissé Ba la maa ngi lay nuyu. ñëpp ngay waajal sa combat bu rëy sa diggante ak Général Malick ñuy gis ni saa yu ngeen dajee rek day mel ni daa am cër boo xamante ni général Malika joxuloo ko daf laa xeeb xeeb kooku mu la xeeb nan nga fas yéene jëf. bu subaa dina ma jox tër su ma daan ma toog ci biir dina ma jox tër dina ma jox tër mais bu subaa si gàttal yàlla su ma toogee si biir dina ma jox tër bu baax su ma romb dina ma jox tër. moom dafa mel ni cible arbitre la wax moo la fi bàyyi parce que moom li muy compétir di bëree lu mat 64 litres wala 65 litres du Fils de Balla la nii moo koy teree dem fi mu bëgg a dem. loolu moom la conseil GIE moom loolu moom la concerné compétition muy compétir moom la concerné. man équipe yi Balla Gaye laay a équipe Mor Fodé équipe Waalo maa leen sant bu baax ku ci mel ni président Bade maa ngi koy gërëm bu baax sonn na ci combat waa équipe Mor Fodam waaw di bu ñu demee suñu coach ñoom la doon góor waaye équipe Balla Gaye maa ngi leen di sant bu baax ñun ñëpp Moussa sama coach boxeur maa ngi koy bu baax di dégg waaye kon Balla Gaye ñoom Balla Gaye de Lees Elton di dégg ñoom Sa Thiès ak Lac de Guiers mbay dégg waaye yëpp ñu commencé junior mbay jël njambaar maar ne de gars yëpp ku ma limee damay juum dégg naa leen ñoom ñëpp ñoom bu si ñoom ñëpp sama gars yi laay di doon seen taxawaay baax ci combat bi lambaloog yëpp dañ ne Fils de Balla moom moom cinquante bëre bi nga moom cinquante xeex yéen ñaar da ngeen di séddoo cinquante cinquante wala damay jël cent yëpp lamb bi léegi lu fa am yow bi déggul ma la maa mun maa ko doole lépp lu foog maa koy def. ngeen xam bëri ban lépp gën a lépp lu mu indi ko gën a am. ñeme nga xam loolu la. Eumeu Sène Junior ak xale yëpp nekk sa ginnaaw loolu loolu pression ci yow. géej waay yëpp benn suñu doole ñun ñëpp dañuy ñëw waaw maa leen sant bu baax gis naa conseil gis naa yan bi lépp maa leen sant bu baax. parce que sëñ Bamba aw ma seen maa ngi moom lay kontaan lay kontaan ñoom ñëpp waaw kontaan naa si bu baax waaw. de Balla ñu ngi lay nuyu bu baax di la ñu gis ne général bi muy mujj si làmb fii la mujjee woon géej waaye digganteem ak sa grand frère Mbaye Dine est-ce que combat bi du nekk revanche si yow. du benn revanche man sama bopp laay bëree damaa ñëw pour bëree daan damaa ñëw bëre pour bëree daan man xale laa dañ maa yónni sama gars yi dañ maa yónni yaa xam ne yaakaar si man dafa bëri kon taxawaar loolu xaw ma leen ñu may xaar ci moom wala may xaar ma xel ak bëri ma dox ci doom bëri laa wax ak génn su bëree ma dox ci doom ci doom ah sama dernière question mooy que général nee na yéen ñaar ku dàq bëri ku dàq ku ëpp ku doole ëpp moo bu dee bu dee galaaj ëpp moo bu dee kii kii ëpp moo déggoo lu ma wax ah bu bëggee ñu bëree 45 minutes 45 minutes maa ngi ñoom combat bi déggoo lu ma soxla wu ko un franc lu mu si làmb barke si làmb dégg nga est-ce que laaxoy na est-ce que buñ duggee ci biir géewe bu ko doon wax yaa mun fii sa balla bu yàlla bu doon nax waaw pour loolu déglu ñu koy sant bu baax Assane franchement ñu koy sant bu baax a baax combat bi yàgg na daanaka am na trois ans waaw ñu koy sant bu baax a baax a baax waaw ñu koy ñaanal ñu bëgg si combat bi yëpp engrais franchement sonn trop bu dee bu dee bu dee dugub bi mu xam dugub la quoi waaw heure bi moom ñu ngi ñaanal dara ba ñu yàqal combat bi ba ñu def li ñu bëgg a def incha allah. lépp mën naa wax bëri dóor la ñu waaw mën naa mën na jënd bëri dóor la ñu lépp mën naa waaye ak ay wax si suba yoo xam ne dañoo liggéey. waaw donc suba yooyu dafay kontaan naa si ñoom ndax ñoom nit ñi ñëwoon dafa nekk. waaw ndax gis naa taxawaay gis naa sama gars yi. waaw man de am na si ñoom Jogo ma am saree bi ñoom ñëpp moo tax sama gars yi ñoom yàq na ko. Volcan Goro Bada. ñoom di Spap Ama Dóoru. sama gars yi. Jogo moom amoo fayal quoi Jogo. ak ma yàlla bool bi yëpp. di bëgg sama papa Aziz Ndiaye. Abdou Kolle Aly Ndiaye ñoom Soro Khalil Fadou ñoom ñëpp Masala. ñoom ñëpp Paa Waasa maa ngi koy gërëm bu baax. Dum Saw Dum Saw. Jibi maa ngi koy gërëm bu baax. ñëpp waa Tëngéej. Léegi Moussa maa ngi koy gërëm bu baax. waa Darou Minane ñoom Jabel. waa Darou Minane. waa Diouf waa Diouf maa ngi leen di sant bu baax a baax waa Diouf gis naa seen taxawaay ci combat bu baax. waaw waaw waaw waaw maa ngi koy gërëm bu baax di bëggee kër yi bu baax a baax. ñoom Masala yi ñu ngi koy si maa ngi leen di bëggee bu baax. police Daouda Sare police Seex Ngom gi nga yeewoo Seex Ngom yàlla yàlla may ko ndam yàlla mooy yàlla may ma ndam maa ngi koy ñaanal bu baax a baax maa ngi koy ñaanal yàlla may ma jàmm waaw ñëpp di lay jëm bi sa bala rek maa ngi lay woo bu baax a baax Sengo yàlla sàmm yaay Fatou Fallou Fallou bu jiyee maa ngi lay woo bu baax ci combat bi waa Cheikh Mbour waaw Omar Cheikh Faye maa ngi woo ñëpp ñëpp waaw ñëpp bi bëgg sa bala maa ngi lay woo waaw maa ngi mel ni ay jàppale si combat bu baax a baax. war a jël mooy espoir bi baax na la jëlee at bi la jëlee at bi. Sénégal aw ma aw ma lenn lu ma koy sóoraal aw ma lenn lu ma koy sóoraal ci biir góor buñ duggee ci biir góor xam ne góor laa xam ne góor aw ma lenn lenn lu ma koy sóoraal góor moo sax laa ko boole beneen kii bi nga 15 minutes day wane fulla ak jom ndax ñu ñëw di seetaan si ma la gars yi nee nañ damaa indi coach bu bopp bu lay préparé ci bopp mu mel ni combat bi damaa teel a xam damaa fas yéene sax bu jàng vraiment loolu gën a amal ko jëflante moom. déggoo li ma wax lépp sama gars yi la sama gars yi ñoo ko fay mu ñëw ñëpp yii nii ñu may fanaanoo sama gars yi ñoom Aba Xarim Mar Gànna Jili Dum sax ñoom ñëpp par moom muuri sama gars yi ñoom Ismaila Konga yéen bu diis voilà dama ñoom ñëpp amu seba gars yi ñoom ñoo fay sant suñu wéeru àndale di bëgg Serif tamit Serif maa ngay dégg bu baax a baax waaw li may li may tàggoo maa ñaan jàmm ah